exemple li ngay cité léegi. Hmm. mën nga protester waaye waroo yàq. waroo yàq. voilà alors devoir ak droit droit ak devoir ñoo war a ànd. Hmm. nit ñi àddina dox na foo xam ni tey ji nit ñi am na loo xam ni seen i sañ-sañ xam nañ ko mokkal nañ ko mais aussi seen i droit seen devoir aussi il faut que ñu mokkal ko équilibre boobu di am si côté yëpp mm-hmm. et que maintenant ñi nga xam ni ñoom la ñuy joxe responsabilité ñu wane compétence mais aussi ñu wane équité ak justice maanaam ñu yemale mm voilà Ce fait ni administration si une administration, mhm. ni yamale gens qui la de nangul autorité. alors la a négociation communication force Il dafa am ci a Abdou qui ci li Abdou Fall wax waaw. du wax ci. dafa mhm. parce que dafa wax euh, lo xamné équité manam ko ci mhm. en fait dañuy laaj administration bi ak agent wu administration bi dañ koy laaj mu maandu mais ñun administré yi yenn saa yi ñoo koy laaj mu jeng donc la nouvelle culture administrative dafay laaj ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk responsabilité yi maanaam ñu nekkal fi askan wi ñu dox doxin wu maandu wut ngërëm ci askan wi mais ñun ñi nga xam ne ñoo leen dénk yi tamit le ministre de doon intérêt général Madame li parce que souvent aussi ñun dafa melni nous bëgg li la administration alors que du lu ñuy seddo lu ñuy bokk la gis nga fofu dama exemple bu bu bu bu Abdou président de la République ci m'a gi nga administration mais war aussi l'administration. Serigne Bass dafay nettali mu ne Serigne Touba moo nekkoon ak Serigne Issa Dieng ak mbooloo di leen wax ni leen gis ngeen tubaab yi dañoo dañu am mandute bu nekk ci ñoom moo tax yàlla dénk leen réew muy joxe exemple mu ne damay gàttal wax wax ji parce que dinañ ko seetaan léegi euh, mu mu mu ne mu ne Serigne Touba ni Serigne Issa yow boo doon dawal saxaar gi nga dem bay waaj a téq nga gis sëriñ Momadou Moustapha nooy def sëñ bi sànni ko ah xanaa gaare euh, saxaar gi ni euh, tekk ba sëriñ bi ñëw mu nuyu ko sargal ko soog a départ mu ne ko sëriñ sëriñ Touba ni ko loolu dug mandute li tubaab bi di def mooy mandute bu demoon ba waxtu wi mu war a dem jot muy teq seen kilifaam guy ñëwit kilifa googu geneen saxaar lay jël waye gi mom dafa wara dem mu ne looloo dig maandute donc voilà en fait l'équité ci administration biñu le denk pour l'usager do ci xamé ki nga bokal ak ki nga bokalul mais intérêt général ak tërëlin yi loolu nak ñun mom lañ dul ñaan parce que ñun administration bi bëgg voilà ñu jengal ko ci ñu suñu wajur suñu mm. et cetera donc exemple boobu dama ko bëggone partager parce que dafa nek lu am solo

ak num mu deme il faut que ni ko tubaab bi force reste à la loi. waaw bon. waaw euh, xam nga Omar force reste à la loi loolu mom deug la bu wér ping, mais loolu du téré ñuy waxtaan. parce que aussi comme ni ñuy wax xam nga dañ naan toujours réew dañ koy waxtané administration bi mën nañ jàpp ne mooy loxowu réew mi donc lu ci mënti am dañ ko war a waxtaanee du tere euh, force bobu ñuy wax mu rester à la loi parce que nit ki nak bu dang koy jariñ dang koy servir liñ wax ci servir lajna aussi mom mu am ci cadeau ci liñ koy jariñ ndax mom moy limu soxla wala du limu soxla té loolu bo len waxtanul bo len créewul ay canaux yo xamanteni dina len permettre yéen ñaa ngeen mën di échanger hmm. féewaloo lay am il faut que problème am dafa am légui légui lu Abdoul Aziz wax loo xamanteni li aussi dafa am solo té loolu pour reste ci thème bi ñu am tay affaire culture la aussi euh loolu mu wax nonu sank ci exemple sëriñ bi hmm. Euh, bobu administration dafa am culture buñ wax culture de service moy euh vraiment amatul ben par parloo léegi dañ wax sans culture de rôle moy li nga xamanteni moy dox suñu administration té lolou dañ ko wara dépasser dépassé soo demee réew bu mel ne Japon culture de service mom sen administration chef ba ak agent am ñoo bokk cantine buñuy agné ñoy ñooy bokk ci table buñuy ñuy té du leen téré ku nekk li nga wara def xam nga ko bu heure bi jox la di nga dafa am solo loolu lu am solo la donc euh, affaire communication mom mhm. euh, administration Sénégal ci limuy péché lu brûlé ci parce que nous aussi il faut ngay te fi suñu administration bi dafa melné culture bi ñu am dañu ragal di communiquer bo nekkee ben responsable administration bi dafa melné da ngay laqatu do la laajee sax ko ñu xamné ya wax. Hmm. wax du question rek du question mais li ngay liggéey ñu dénk loko nga xarañ war ko def pour nit war nga war a mën a am matuwaay bu la permettre nga mën a taxaw expliquer ko nit ñi buñ ko soxlaa. Mm-hmm. te loolu du tere ñi la ko dénkoon du am dara lu ñu ci mere. Mm-hmm. parce que dinañ xam ne yow mii da ngay defar yàquloo da ngay defar yàquloo parce que intérêt général la ñu wax sànq. Mm-hmm. intérêt général mooy lalu administration publique. voilà waaw parce que loolu ci la ñuy joxe ci la ñuy waxee affaire affaire justice ci la ñuy waxee affaire équité ci la ñuy waxee affaire vraiment honnêteté probité ci fonctionnaire yeeg yëpp donc loolu dafa nekk loo xamante ne lii nit ñi dañ ko war a sàmm tant que ñoo nga affaire administration intérêt général intérêt général mooy lan mooy li ñu bokk li ñu bokk nag dañ ko war a aar donc mooy aar li ñu bokk administration loolu rek la du leneen te loolu kuy xëy ci administration suba ba ngoon ak koo xamante administration ngay dem di laaj ay service da nga war a fexe ba intérêt général boobu kenn bañ ko yàq nit ki administration di servir amul droit yàq ki administration ki muy ser moom miy servir aussi amul droit yàq mm. loolu bu ñu ko xamee ñun ñaar muy man administration yow si usager wala citoyen ñu xam ni lii ñu bokk dañ ko mm. mais rek la dem. la dem minute moo ñu ñu def tour de table bu rapide Samba Diop man citoyen la naka sécurité sama euh, sama protection sama développement ci administration. loolu administration moo la war mm-hmm. donc da nga koy dimbali ba loolu mu mën assurer mm-hmm. ni nga koy ministre wax devoir nga di ko def moom mat sëkk devoir yooyu itam may na la nga def li ñuy wax contrôle citoyen am na solo ginnaaw administration bi yow la fi nekkal am nga sañ-sañ di saytu ni administration bi doxee su doxul nga dénoncé ne administration ni mu waroon a doxe doxal doxe doxewu nii tey jii loolu yaakaar naa raw na ci Sénégal bari na fii

citoyens yi ñoo lay xiirtal ci nga dëng te ay seen i pexe bari na su ko defee mentalité boobu moom la citoyen bi war a bàyyi su ko bàyyee keneen bàyyi ko keneen bàyyi dina mujj doon euh, loo xam ne nii day day law culture boobu bu fekkee ne dawal nañ ko fonctionnaire bi dootu am sañ-sañu def loo xam ne nii dëng na te itam leneen lu am solo mooy li ñuy wax imputabilité war nañ ko delloo si ci nouvelle culture bi la war a bokk. kenn ku ne fa nga nekk lay sa responsabilité nga war ko def soo ko deful ba yàqu am lañ la war a teg ñu teg la ko daan dañ la war a teg ñu daan la ko loolu lu am solo la. loolu buñ ko lijjanti woon ci réew mi lu bari mën 50% de nos problèmes seront réglés loolu it indi na autorité de l'État état na il faut ñu waxtaan d'accord accord naa ci loolu waaye autorité de l'État état fu mu jógee. musiba sax na fa réew yi ngeen gis yëpp ñuy tàkk guddeeg bëccëg état amu fa administration amu fa parce que autorité de l'état moo fa jógee il faut que état bi restaurer autorité am ni mu koy restaurer nag du jël dégg maam di dooraate ak ak mais moom la ministre wax léegi la mu war a def da koy def kilifa ga fañ ko teg na mu war a mel mu mel ni su ko defee citoyen bi respecté ko loolu yaakaar naa ne am na solo trop. jërëjëf Samb wax ju am maanaam Abdou. waaw euh, li may yokk si li Samba ak euh, Mor wax léegi rek mhm. euh, mooy il faut que ñu boole si culture résultat mhm. résultat par exemple suñu waxante dëgg nga ñëw <coughs> ñu jox la direction nationale mhm. par exemple nga war a ay forage ba waxee ko noonu ma taal na forage nga def fa ñaari at forage ya yàquwoon woon jaguñu la fa nekkoon yokkoo ko wax dëgg neex yàlla sa mission defoo ko dañu war di ndamoo

réew moom suñ naxul suñu bopp suñu réew yi surtout nga xam nañu war a dabe te yi ñu war a la dafa bari te sotteekoo sotteegul faw corresponsable li tubaab di wax corresponsabilité maanaam faw ñu den leen lay suñu mbagg waaw état bi joué mais état bi pour mu mën a joué restauré waat autorité am ni ñu ko waxee faw moom tamit mu jubal voilà benn mais ñaareel ba euh, ñu comprendre ni état bi mission yëpp amul ben réew bo xamni ne état kay développer nit ñi ñoy développer réew ma état gunge leen créer ay cadre créer ay conditions yu ñoy war def koom sen seen dox ñoo war def usine sen usine yi taxaw mëna dox mëna def résultat citoyen bi aussi xamni li rôle rôlu état bi ñi mu fal rôle am aussi ku nek échelon ba nga tollu nga japp ni avancement wu réew mi sa avancé baax mm. alors loolu fekk yeggaguñu stade bobu parce que réew yu dabe yépp

gis nga euh, ministre bi dafa wax léegi lu dellu ci doomu aadama araab yi dañu naan euh, ma arafa al arjaa illa rijaluha wa illa fala fadla li turbin ala turbin boo déggee ñuy tudd am réew mais réew ma suuf la ak i doj Sénégal suuf la ak i doj Ghana suuf la ak i doj mais nee suuf suñu tudd li tax ñu tudd ko mooy nit ñu ko dëkkee ñuy def euh, màggalu Touba lu tax ñuy tudd Touba dafa am ku fa indi valeur ajoutée bu ñu ci jógee dem Tivaouane nous tax ñuy tudd Tivaouane dafa am ku fa indi valeur ajoutée donc problème mu réew problème mu valeur ajoutée la te valeur ajoutée nit ñi ñoom à travers ce mën-mën ak seeni seeni bëgg-bëgg administration bi pour mu nekk euh, ñu am performance am contrat de performance bëgg am qualité nekk au service euh, des populations dafa am benn xalaatin ak nangu gu ñu war a nangu xalaatiin woowule loolu tant que defuñu ko ñu jàppee administration comme loo xamante ni dañ koy dañuy dañ koy paacoo maanaam dañu dañuy séddoo ay ressources am mm-hmm. te bañ a bokk ay ressources am suñu con suñu conception wu administration tant que loolu la séddoo ressources yi te bañ a bokk ressources yi mm-hmm. dinañu yag lool té duñu nek réew muy fël je crois que rek war nañu yéné suñu réew mu bokk ci réew yi feul té am nañu nit ño xamanteni ni am nañu compétence su defar réew yi feul té am nañu pass pas yoo xam ne ko ràbbalee dinañu duggal ci euh, yoo yoonu euh, réew yi feul muy euh, culture bu bees bobu lé nga xamné moy indi performance indi émergence voilà nouvelle culture administrative établie l'alco du di ko doxal